Euh, nek fi di évoluer fi di jàngale fi au cours privé les Mamelles. Mhm. kooku moy Seynabou Thiaw. ah madame Thiaw euh, mu mel ni rek euh, ragné nañ la wakam ndax jeune yu bëri yor nga len so mënee revenir rek ci ce cursus professionnel. établissement yi nga jaar laata ngay dugg ci enseignement bi. ok depuis avant may commencé di jàngale dama nekkoon ci di def ay cours sama biir keur mhm. transformé ñëpp xam nañ transformé néeg def ko chambre bo ki bo xamantene fa ngay jàngale jël élève di leen fay duggé di leen fay jàngale. après la sama tante benn tante bu ñuy wax ñaña yobuma ma une école de la place. après bi ma fa joké nag depuis 2012 ma ngi fi au pour privé les Mamelles. Euh, yàlla mën nañ xam lan mo la duggal ci métier. l'amour amour par amour parce que enseignement nek na lo xamantene ni fiir la fiir bo xamné mëno ko bolé ak dara. parce que soo ko boolee ak dara de toute façon boo ko boolee ak dara rek dara googu dina li nga bëgg da un ci élève yi do ko am sa école du jëm fu mu wara téggu yow sa bop sa réputation dina ya. donc par amour la ci démé euh, comme ni nga ko euh, par amour euh, comme ni ma waxé ci ci njëlbeen lek wakam ku seyna bu Thiaw di madame kan comme ni ma waxé xalé yu bari formé nga leen donc amour bobu réputation bobu ko wax rek danaa la c'est une dame passionnée par son métier gis nañ raaya bi nga xamantani nañ Hmm. Euh, plus de 50 écoles collectives des établissements ñu euh, nommé euh, sargal Djigenye hamantani hmm. trois dernières années dañoo joxe le meilleur résultat nan nga content contente. Hmm. contente parce que je ne suis pas la seule ici. Wakam ni mu nos collectif des directeurs d'école donc c'est Wakam. et Ngor. donc duma si man kese kese kese mais la classe de CM2 mon nekk particularité bo xamné dafa metti dafa am début am fin fin bi moy les résultats té kune école privée né résultats sans les résultats do am yenen élèves yu ñëw parce que résultat motax ñu né école donc kontaan la ci def torop torop torop bo am commencement mais amul fin lepp nak via mon directeur moy monsieur Insa Diallo lepp mom la ndax ba nu ñëwee fii ba léegi nii am ñu lu ñu naxaari ah amuñu dara lu ñuy naxaari mettre nañ dans de très condition di fay ko xam nga nag ñun dañoo bëgg xaalis. Mhm. di fayeku heure. teg ñu fu ñu tegul kenn man madame kan moom dama mën naa yëkkati sama loxo wax ne teg na ma foo xamante ne tegu fa kenn. dañ koy wax sax man fi ma teg tegu fa kenn. Mhm. ma xam ko moo tax damay dee si école bi. waaw je ferai le tout nag pour mes yi ñu amoon daaw. Mhm. yu ko ëpp ñu am lu ko lu ko raw. waaw. madame Kan, gis nañu enseignement bi euh, jamono ji wala au cours des dernières années jafé jafé bu ñu am loolu en tant qu'enseignante euh, ana ban gis-gis nga ci am Jafé jafé c'est par rapport à Covid bi niñ ko dundé ñun dañu jël suñu stratégie propre stratégie ñu tej école yi ñepp tok seen kër wóor yëpp ma jël sama sac def sama euh, exercice photocopier di dugg kër par cœur di leen jox exercice loolu amul si benn école fini Sénégal gi amu fi ñi voyage ñii lañ ko doon defee ci internet affaire yooyu mais eh, fii wakaam nañ xam nañ ni ñi les parents les les moyens ne sont les conditions ne sont pas réunies mhm. donc dama dooloon sama sac jël sama épreuve photocopier def sama ti di dugg ci kër yi di len jox suñu paré ma défat la même chose mhm. metti woon na trop waaye alhamdulilah sant yàlla mhm. Ben ci génnee jàmm ak salaam. te dafa jafé sax professeur di xam kër élève am euh muy confirmer encore une fois rek amul bi nga xamante am nga ko ci sa métier. Mhm. Euh, mais tamit euh, madame kan gis nañ euh, une baisse des niveaux des élèves élémentaires tamit. Mhm. supérieurs, sax lañuy remarquer mais. Mhm. ku nek xam na ni élémentaire c'est la base. dañuy faral di wax ku sa élémentaire bax doo am problème mais légui gis nañ non seulement xalé yi lii rëtuñu. da ngay dugg kër ah, à yu mhm. euh, a commencé chez moi wala ci mhm. samay mbokk télé mhm. internet euh, YouTube donc yow lolu ana ban euh, message ngay lancer aux parents ak quelle solution proposes-tu peut-être donc ñun au niveau des Mamelles parce que man suis là, mëna suis waxal dañ au mois de janvier CICP parce que lecture bi fofu la Fofu la jàngé li so démé des CE1 leçon moom jox donc ici au niveau des Mamelles CICP au mois de janvier tous les élèves disent donc suivi bi c'est à la maison. suivi à la maison modeste. donc nous à notre niveau li ñu war yëpp dinañ ko def. li ñu war yëpp dañ koy def mais suivi bi à la maison donc li may ñaan parents yi mooy su xale yi lecture bi li ci des ñun mën nañ ko gérer mais nañu lire les élèves ne lisent plus. yaa ngi wax léegi affaire bibliothèque. manque na si si wakaam amatu fi pratiquement amatu fi les enfants ne lisent plus. d'autres ensuite ñu génne fi le euh, châtiment corporel dañ ko dindi mais xalé mën nga ko corriger ñii xal nañ leen a dañ leen doon dóor. mais bo gisé élève ñu ñu réussir légui parce que li amone bu njëkk. amatul légui amatul dóor yi la ñuy tere. mais c'est vrai bëgguñu kuy dóor bay ba ñun ñi malgré nous dañuy dóor. mais buñ leen dóor woon tay jii fuñ jëm. donc le suivi à la maison moom moo des. suivi à la maison mom la parents yi amoon. jëndal sa bopp xalé bi amna na entrée en sixième nga jëndal ko téléphone je dis non. man je dis non demal ba BFM nga am sa BFM bon bah, en ce moment tu as ce droit mais actuellement sixième cinquième nga à am ce téléphone. man je dis non même mes élèves ici le savent donc amatuñu temps de lire. à la tout notre temps nous, duñu ñibbi. fii la ñuy passer la journée. suñu directeur utal on est là nous sommes à l'aise nous ferons maximum Nous ñu war yëpp dañ koy def. mais à la maison loolu moo des. Euh, comme nous nga dit, waxee ce n'est pas euh, volontaire du loo xamante ni bëgg ko même ñun euh, si suñuy jamono on était terrorisés même mais mhm. maintenant bi ñu nekkee ay mag si lañ comprendre le pourquoi professeurs nous doonuñu woon Dori élèves mhm. pas parce que dañoo soxor wala dette. Mhm. te comme nous nga également gis nañu que les élèves ne lisent plus da ngay gis sax ku nekk université su waxee nga ruus élèves de terminale di def ay fautes te bu retourner si suñuy seeni par exemple des années 90 80 qui sont une génération euh, euh, consciente mhm. euh, châtiment corporel comme ni nga koy waxee léegi tenu mhm. tenu tenue tenue bu fekkoon école bi sax amul tenu, mhm. da ngay gis xale buy def CM2 wala sixième solu yenn sol comme ni dit également les également xale buy def C2 nga wutal ko tablette et tout xale yi liiratuñu et aussi parents yi. dañuy école sax dañuy bëgg di débarrasser aussi sen doom yi. gis nañ ko xalé bi 15 h lay dugg 14 h ñu la la euh té comme ni nga koy waxé xalé euh école la gëna passer plus de temps qu'à la maison. Mhm. té gis nañ enseignants yi vous êtes passionnés yene a def lo leen mhm. maintenant c'est aux parents euh, de prendre euh, le relais. Mhm. maintenant euh, ban regard nga am si l'évolution de votre métier ginnaw yaa ngi ci enseignement bi depuis des années amna évolution machallah là parce que je suis avec un directeur qui me choisit de tout di may defal lépp. j'ai pas de souci j'ai pas de problème. du je suis à l'aise parce que xam na ne yàgg du contrôle du dara. su fi doro nit ba gaañ ka sax du yéeg. parce que xam ne c'est involontaire. là au Mamel. le CM2 ouvre au mois de septembre au moment, Septembre, n'y a pas de mais le CM2 ouvre au mois de septembre nous sommes là au mois de septembre du lundi au samedi. lundi nous sommes du lundi au samedi à 6h30 j'avais non loin de l'école 7h je suis sur pied. mercredi soir nous sommes là de 15h jusqu'à 18h nous sommes là. le samedi nous sommes là de de 8h jusqu'à 13h donc nous n'avons que le dimanche donc nous on travaille tous les jours man j'ai pas de problème tant que moi je suis à l'école avec mon directeur qui me choisit je n'ai pas de problème et je n'ai beaucoup dara mhm. parce que moi, il m'a mis dans de très bonnes conditions mhm. ma ci dara dara yàlla xam na ko salaruma si dara bu tabaski jotee dinañu jox xaalis su fee korte jotee dinañu jox koor jotee dina ñu defal ñu bëgg teel a fayeku mettre nu à l'aise duñu faye baree dañuy dem faju je que loolu la nit ñi di wër IPM IPRES caisse de sécurité sociale ñun am ñu femme au foyer sax am na fi ndax góor ñi am seen jabar ñoom ñëpp dañuy fayee ko ah. seen jabar dañ leen di fay femme au foyer donc amul ci benn école nous sommes ñun ñooy njëkk faye ko ci wakaam gi yëpp mhm. actuellement au moment où je vous qu'on est depuis vendredi. Nous, suñu xaalis rees na donc man n'ai pas de problème. parce que je suis entouré par de très bonnes personnes. Euh, entretien exclusif euh, avec euh, madame Kane euh, di Seynabou cours privé les Mamelles Nous sommes les témoignages du directeur de cet établissement et ses quelques collègues. je suis monsieur Diallo Insa que déclarant responsable directeur des cours privés les mamelles mamel nous nous créé depuis 1991 Nous avons créé à la cité avons ñu ba ñu toll fii tey yegg si fii quartier guissor Nous ñu continuer euh, njàngale mi fii ci Guissor 2000 année 2012 2013 lañ fi installé et ñu dajeeg ñoom personnel bu jógee colonel Alsane Gueye ñu ñëw si seet si ñu ne ñu dañ bëggoon ñu liggéey man fii ci Mamel et ñu accepté les conditions ma accepter conditions yi et jël euh, embaucher de defal un contrat à durée indéterminée di fait fait ay salaire yo xam ne ñoo d'époque code du travail santané. et yo avons aussi inscrire leen ci institution sociale yi mooy caisse de sécurité sociale et IPM IPM est institut de prévoyance maladie So feebaree nga mën faju te ci euh, presque 80% les médicaments IPM moo la koy remboursé cotisation bi nag yow liggéeykat ki ak école bi ñooy ñooy ñooy dajale versel kat bi et bi fini fi mais ben cours sax lañ niveau qui bu niveau bu étape bu ben classe lañ ci amoon eh, CI classe CP c classe CE1 CE2 CM1 CM2 bañ ko d'oré 2013 rentrée scolaire 2013 2014 CI bi ñu doublé deux mille quinze hop ñu doublé nag cours yi yëpp étape yëpp ñu doublé leen CI ñu am ci ñaari classe euh, CP deux classes CE1 e classes CE2 deux classes CM1 e CM2 te loolu li ko waral mooy résultat yi nga xam ne bi suñ classe cm bi mu ngi koy joxe chaque année te loolu euh, maîtresse bi nga xam ne bi moo yore cm bi di Seynabou Kane euh, madame euh, bu caw madame Kane boo xam ne bi moom moo yore cm bi di ci def nag ay résultats yu mucc ayib

17 D'ailleurs, déjà ci 42 élèves yu nous présenté woon presque ñaari élèves rek ñoo ci am certificat d'études ak entrée en sixième et donc en tant que directeur euh, du Saitou Ligue, chaque jour quotidiennement je suis ak eux. gis naa Vraiment, elle donne satisfaction, totale satisfaction à l'école. Mais évidemment, euh, équipe là, école, équipe pédagogique là, qui n'est que CI, CM2, si on mi que CM2 so, mënee def ay résultats xamal ne ki nga xam ki mo nek cm jox la eh, élèves itam moom itam euh, impact ci ces résultats muy aussi C2 etc. donc équipe pédagogique je vous di résultat yi nga chaque année ci inspection euh, de l'éducation et de la formation qui biñ bokk Almadi IAF Almadi ba ci bi ñu def réunion ñoom nag jigéen ñi am nañ kuréel boo xam ne bi ñu ngi ko tuddee cellule des femmes du CODEC et ñu wooñu réunion mat nañ peut-être juróom fukki école publique ak privée ñu ne nag ñun ñii Mamelles cours privé le mamel bokk nañ ci ñi nga xam ne ñi tànn nañ leen e, ngir jox leen prix maanaam nominé leen e, ci femmes yi nga xamné ne bi jigéen yi nga xamné ne bi ñooy joxe résultat nek yoré classe CM2 suñu maîtresse bi euh Seynabou Thiaw madame Kan bokk na ci et lolu nak mu nek euh, mbékté ci ñun mu am solo lol lol lol enseignante au MAMES. Je tiens la classe du CM1A. c'est une collègue de Madame Kane je voulais vraiment faire un témoignage sur Maracan. Elle est notre doyenne. Elle est la plus ancienne de tous les enseignants à l'école. On l'a trouvée ici vraiment. Et le travail qu'elle a bas ma nous sommes un travail vraiment très remarquable. Elle fait excellent résultat, Aussi faux, la dernière fois, elle avait 98%. Donc on espère que cette année aussi, elle aura 100% elle aide tous les enseignants dans, le domaine, pédagogique. Si nous avons des difficultés, on va vers elle et elle est toujours là, très disponible. Le matin, elle vient très tôt à l'école et elle quitte très tard l'école. Donc elle n'a même pas eu vie de famille. Toute sa vie, c'est l'école. Donc euh, vraiment, nous sommes très heureux qu'elle soit primée pour le 8 mars, la journée de la femme. Vraiment, nous l'encourageons à aller de l'avant. Bonsoir, je vous salue vous tous. Je m'appelle Aminata Sine je suis en classe de 5 2 a et notre maîtresse s'appelle Madame Kan Seynoboukiao. Elle est notre maîtresse, elle est gentille, elle nous, elle nous apprend à lire, à écrire et à parler français. Salam alaikum. di leen dalal jàmm ci seet si bi ngeen ma seet si ci nomination seen ma ngi tudd Adja Fane Ndiaye Ndiaw nëpp kuy seen bu nag sama doom la mooy sama doom bu mag mooy sama taaw kenn yaru ko nag maa ko yar ma ko jàngal tam ma ko jàngal bi mu nekkee tout tànk ma ni mu nekk ma ko jëm maa ko jàngal mu sa jàng cours soir ku doon jàngal ba mu war a dem ci classe yu mag yi muy door am ko ko jàngal yàlla def nag mu nekk lu mu bëgg njàng lu mu bëgg la xamoon naa bisam bii tay bettu ma ndax ku fonk liggéeyam la tabarkaal macha allah mu nekkee tout ba léegi may sant yàlla bu baax nag di julli si yonent bi bi lii amee lii nag bettu ndax lu mu liggéey rek yaayam la ko jox affaire ak ndax moom bi papa am di gaañu duggagul école ane bi papa am gañu ci lu dugg école ma yor ko waye de yor bi rëccu ma ndax ay rakkam yi ay xalé yu ndaw lañu booba juddoo bu ni sax mu yor leen ba legi nii ma tok di wax yow lu mu liggey ci kër gi la ko def ndax yermiyaay ndax ay rakkam itam muy Omar ay rakkam seen papa dafa gaañu moom rek mu di ci liggéey lu mu faraatu indi jox ma ma jox ay rakam kon ma di ko sant di ko ñaanal yàlla am xol bu sedd lool am kontaan bu baax nag ci bi yàlla na ko jig jig bépp képp kuy jàngale ci école bi mu ne yàlla na nekk seen yokkute yàlla may leen ci wér yokk seen wërsëg di gërëm bu baax. Sey Diallo mi nga xam ne directeur la kenn rek laa ciy teg muy sama rakk boo xam ne ñoo bokk ndeex baay moo ko jële fii ci man ne ma dama ko yóbbu ci monsieur Bari mu jël ko muy ñaañi sama rakk la ñoo bokk ndeex baay mu ñu ma fàpp ñaay ak Bari jël ko monsieur Bari ko jël mu nekk fa ay att waaye musul manqué résultat ndax ndey boo ko sagalee yàlla da lay sagal première la ma sa yor te bu mu am ñaari nit wala ñetti nit ñoo dul am wala benn nit ñoo dul am certificat d'entrée en sixième kon may gërëm bu baax ñaaña di ko delloowaat njukkal ci nomination bi ndax bu ko jëlul woon yóbbu ko foofu mën naa am lu siiw nii keneen du ko jël moom man si am bi di leen sant nag yéen waa tele bi di leen ñaanal yàlla seen yokkute yàlla may leen wér ngeen am ci lu raw seen njort jërë ngeen jëf ngeen laal kenn koo xamante ne kenn sama xol la sama lépp la ci mu yërëm yaayam bëgg yaayam yërëm yaayam yërëm ay rakkam mën naa ne moom moo tax jooyuñu dara suñu papa dafa teel a génn at gannaaw yàlla ak sama yaay sama yaay ñu koy sant di gërëm jooyuñu dara dara dara dara dañu yor suñu xaalis sax sama yaay fa dañu suñu soxla mom sama mag di seen wiccaw ñëw jaar si ay tànkaam ñun ñu dara ñu dara dige mom ay rakam yeb nak day ku day fayeku weer bu dé bu sila dara bu ñew da kay sam yi lepp lu wara dem si dépense kër bi lu wara dem si ay rakam lu wara dem man ci sama jangi doom man mo dugal sama doom école bu ñu réussiré tay si jang mom bi mo tax bu ñu jël le tour de si ay jang ba sama doom ji di Saliou Gueye def ay cours di jàngale moom mii moo tax dama koy ñaanal yàlla li mu am nii nag du sansam méritam la ndax ku mu jàngal yàlla def na si barke ku mu jàngal réussir la caw seeni Alassane si barke weeru sell bii di suba di sa bésu maam di bésu nax diw caw seeni loo ragal yàlla boo ko gis loo tëgg yàlla nga ko daan yow yaa tax jooy ñu papa yërëm nga ñu yiir nga ñu aar nga ñu suturaal nga bëgg sunu yaay ñun yaay rek lañ am sunu yaay rek lañu bëgg Thiaw Sène yàlla na yàlla suturaal su ma waxee wax bu ëpp dinaa jooy ndax féete gi ñu fu yàlla na yàlla féete fu ne si dara li nga am ni nag bu sens sa mérite yàlla na yàlla def jàmm Dame Thiaw euh, la dernière euh, <coughs> Madame Kane plutôt <coughs> la dernière question muy que ni euh, enseignement euh, primaire jamono ji euh, Sénégal nga Dakar yàgg nga jàngale <coughs> boo comparé 10 ans en arrière ak enseignement bi fi mu toll jamono ji gis nañ grève et tout est-ce que am nga enseignement Sénégal dina normale, a normal benn jour wala tamit Yakar, si jeunesse bi tout en sachant que parents yi rek dañ école bi comme un moyen euh, de fuir un peu leurs responsabilités. Mhm. Votre, votre avis là-dessus hmm. L'école, je ne pense pas. <laughs> Au niveau du public, privé, on n'ose pas. Mhm. Pour le privé, on n'ose pas. Mais le public, mhm. ah, ça, c'est autre chose. Et malheureusement, nous, nous ne pouvons pas examen privé tant que base est public. Parce que L'examen, c'est national. C'est pour les 14 régions administratives. Donc, l'examen, c'est national. Donc, euh, de toute façon, vraiment, je ne pense pas. Euh, enseignement, il y a une difficulté que souvent Au niveau de l'enseignement, mhm. dans nos classes. Déjà déjà fait. Dans nos classes. Mhm. Euh, à mon niveau, je n'ai pas de difficulté. <laughs> Parce que moi, vraiment, je man, mon, pas mhm. a nekk sama classe. je peux sortir laaj leen ñoom ñi collègues d'abord le 6 septembre mhm. il faut que nous suivions suivre sama logique mhm. quand je ne suis pas là ne mel ni pas. ngi mhm. c'est ce que j'ai inculqué à mes élèves Je ne dem ba fu ma neex du dégg personne ne prend le nom de bavard amul donc c'est mom, donc on koy installer ba la tenue de la classe da ngay am main sur les élèves ñu am lu ñu lay ragalee xam bu baax fu ñuy teg seen tànk de ce fait nag li ci des moom day ñëwal Mhm. donc man à mon niveau man dans ma classe je n'ai pas de souci. n'ai mhm. pas de problème avec mes élèves muy ñii ñi sont yoroon. Mhm. ba ñii taxaw ne musuma pas am problème. Euh, Madame Thiaw Madame Kan, plutôt excusez-moi quel mot euh, pour les femmes tout en sachant que 8 euh, mars c'est c'est journée de la femme en tant que femme. nga nekk enseignante a un ban mot ngay wax jigéen ñi ci 8 mars. Je jaraw rekk 8 mars je me suis dit fajar di ñëw di sama et je laisse mon mari à la maison ma tout en sachant que chaque jour c'est 8 mars. chaque jour que fait 8 mars am ñu nous sommes nombreuses ici il y' a beaucoup de femmes chez nous. il y' a beaucoup de femmes au mamel parce qu'on en a trois. on a deux élémentaires et une secondaire. on a beaucoup de femmes. mais ce bi ñu avons, a am yëpp am nañ ko vraiment. jigéen moom macha madame Kane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi maa ngi leen di gërëm di leen sant waa WOW mhm. di ñaan yàlla euh, euh, télé bi jëm foo xamante ne ni fu gën a kawe la. bu sut seen jort am ñu seen fay yàlla leen yàlla aar. yàlla leen maam bàyyi laay aaral boppam. samlen lakalen fu yàq agul si barke Seydina Limamou si baylay Baye Laye jaajëf jërëjëf merci beaucoup donc c'était euh, votre entretien exclusif euh, avec madame Kane euh, di Seynabou Thiaw euh, fii nii ci cours privé les Mamelles mu nek euh, dame bi nga xamante octroyé nañ ko lolou di raya euh, décerné ko trois meilleurs résultats euh, parmi ces trois dernières années li nga xamante ni plus de 50 écoles euh, mu bokku ci trois femmes yi nga xamante ni euh, tànn nañ ko donc euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.